macha allah laaw la cat tabarkalla sa noon da laa yërëm bilaay bàkkaru sollaay macha allah réew mi gis nañ li ngay liggéey barke Dembo Ndiaye avion bu confortable tabarkalla macha allah barke Dembo Ndiaye avion bu confortable président Macky Sall cat la gamme de la validation umu musul kenn musul gis lu mel nii waa umu loo wax ci gàmmu gi Ousmane Sadji Moustapha Sadji Oumou Sow Sadji Kourouma bu DG Sadji waaye Diouf eh, eh, eh, le maire li mu sax Koddu Makoddu Sadji waaye xool Mouhamed Tidiane Mbaye ba déressé ku dara ne <laughs> nee naa la tey fii dañoo gàmmu plus barke yonent bi barke yonent bi ah, waat gis xaar waaw dafa leer. xoolal sama doom jaa ngi nii waa lii du koy fay Papa Gouda. lii Mbaye Gueye Faye ak Souleymane Faye sax mënuñu koo fay. <laughs> fa tubaarikàlla mu fe jaan ndaw bari dangar